Amis internautes et cinéastes de IGFM, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau. C'est reparti dans Action, l'émission préférée des cinéastes, l'émission qui vous parle 100% cinéma. Nous d'arrêt du cinéma, comme d'habitude. Alors, Tay, Daniel Dalal, un jeune réalisateur, pétri de talent, très talentueux, machallah. Mon nag dafa faire un film documentaire ça parle sur l'immigration clandestine am euh, émotion mi ngi ci banneex mi ngi ci souvenir mi ngi ci parce que ku nekk xam ne ni immigration clandestine nekk na benn fléau boo xamante ni sax fii ñu ngi doon wax benn terme Barça wala Barsak mais ci loolu noonu yëpp dinañ ko tënk ñu bàyyi ko moom mu nuyook internet yi seetaan après ñu gën a yaatal waxtaan bi Khadim Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Lamine euh, maa ngi lay euh, fay di nuyu sa euh, internet yi nga xam ne ñoom ñoo ngi lay suivre yëpp te nga xam ne ay passionné cinéma lañ. di leen euh, di présenter wu d'abord dina man euh, Mamadou Ndiaye la tudu parce que mo nek ci sama euh, carte d'identité, mais Khadim lañ may wowe Khadim Ndiaye donc comme niñ ko waxé légui euh, un jeune réalisateur donc jeune réalisateur parce que tout simplement pas jeune ci at bi mais jeune ci métier bi parce que bima ko bima ci duggee yàggul nonou donc du coup maa ngi commencé di gorgorlu di tek ay pas dank dank euh, maa ngi sama deuxième production première production bi maa ko euh, en 2016 bon donc depuis bobo legi production bobo génnul et puis en 2017 laa def euh, sama deuxième production qui affaire immigration comme ni nga Alors, waxee. alors gis nañu bande annonce vidéo bi ñu gis ci am na rongoñ bu bari bu ci génn am na ñu mi fàttali parce que tey ku ko seetaan. di nga am loo yëg sa xol dina am émotion boo yëg sa biir xool waaye tamit nit ki toog di ko seetaan dina fàttaliku benn mbokkam wala benn dëkkandoowam wala way jur buy xalaat doomam bi dem des ci gaal gi tey lan moo la motiver ba nga porter sa film documentaire ci thème immigration clandestine. Euh, je pense que si sa biir question si sa biir question da nga ma ci sama réponse parce que da nga ne euh, tey jii ku nekk si Sénégal wala ci Afrique. jafe na nga dugg ci famille bo xamné amu ci kenn ko xamné immigré la wala bok nga dugg ci famille nga fekk fa ñu bari sax ño xamné ci fruit immigration la ñuy dund wala ci euh, immigration euh, irrégulière bobu nga wax parce que man je préfère utiliser le terme irrégulier au lieu de terme clandestin parce que tout simplement kuy voyage comme euh, niko kenn ci intervenant yi ci biir film bi waxé ne ce voyage là n'est pas clandestin parce que kuy tukki ku nekk say membre de la famille yëg nañ la d'ailleurs sax lu si ëpp yaay gi wala papa ji wala famille bi ñoom ñooy cotiser wu ku nekk génne dara pour ñu jox la yow pour nga dem tukki kon loolu nekkatul clandestin parce que am na ñu la yëg. mais Xaadim am na ñoo xamante ni dem nañ voyager ba yegg ñuy doog a yëgal seen waa kër tamit yegg nañ jël gaal gi. waaw loolu am na ci loolu am na ci mais lu ci ëpp am na ñu leen yëg ñu ci ëpp dañ leen yabal ça veut que dañ leen jox paas pour ñu dem damay jël exemple ci euh, maire bi nga xam ne yaa ngi wax léegi ay rango ñuy tuuru et am na ci benn maire boo xam ne bu def témoignage bu triste ci biir euh, film bi ku tudd Awa Gueye kooku noonu pour firndeel li ma lay wax nii moom ci boppam moom moo jël xaalisam boo xam ne daf ko dencoon pour investir ko ci benn business fayal doomam ak rakam ñu dem ci voyage boobu te dellu si wuñu donc moom tamit elle raconte avec beaucoup de tristesse nu mu dundee expérience bi ci biir famem ak ce lu mu changé ci àddunaam ak ni mu bouleversé ni bouleversé donc pour wan pour revenir ci ce qui est noonu pour wan la ne leen les voyages pour ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo clandestin ñu ci ëpp yëg nañ leen bi ñuy dem ba pare ñoom seen biir dañuy donc du coup yëg nañ organisé nañ quoi voyage bu organisé bien vrai que c'est irrégulier mais c'est organisé entre nous pour nous mën parvenir à aller ensemble parce que quand ils partent ils partent par centaines vais vous jox un exemple ben vieux bu intervenir ci le film bi mom tamit bu def euh, témoignage yu doy war ci bir film bi ko xamne mom il a fait la traversée à trois reprises te a euh, soti donc il dit que y avait jël pirogue bi ils étaient 102 personnes ci bir pirogue bi je pense que 102 personnes c'est le voyage mënul clandestin amna ñu si bari ci bir 102 personnes yi mën na ci wala plus yoo xam ne seen voyage seen famille ci boppam ñoom ñoo leen paasal pour ñu dem. d' accord léegi euh, yaa ngi koy wax léegi yaay suñu yaay booy ñu ngi leen di mastawu ah, parce que gis nañ ni yaay booy boobu témoignage am triste na mi ngi wax mais xol bi tooy na xelam sori na parce que am na yaay booy yoo xamante ni jaay nañ seen ay or am na yaay booy yoo xamante ni teggi nañ seen natt jox ko seen doom ñu ngi leen di ñaanal ñoom xolu muñ e seen doom yi nga xamante ni des nañ ci ndox bi yàlla yërëm leen te xare leen àjjana eh, gis nañ récemment am na benn réalisatrice d'origine sénégalaise di set ci Djibril Diop Mambéty def xawam xaw ngeen nduroo tuuti concept mais moom bosom Atlantique la ko tuddee yow nga def aussi benn film boo xamante ne ça parle sur l'immigration clandestine est-ce que tay jotul euh, réalisateurs yi yu melni yow les jeunes réalisateurs di génne ay film yo xamanteni ay ay film thématique la muy gëna éveiller di gëna sensibiliser di gëna éduquer mais aussi tamit di dénoncer parce que tay gis nañ ni amna na jeune réalisateur yoo xamante plutôt sen sen yenn projet yu bari do am thème nit ñi duñ ci jàngat duñ ci jëlee jàngat alors yow lan ngay wax ci loolu au fait balaa may euh, wax ci je pense que damay rebondiraat un peu ci question bi ma posé woon léegi te peut-être réponse bi c'était pas complète parce que dama am lu ma détail bu mu ci fàtte woon mooy lan moo tax ma def film bi donc du coup responsabilité bobo. ça veut dire que responsabilité bi nga waxaale ci sa biir question bi ça veut dire que ku nekk tu es responsable parce que tout simplement xale yi ci famille la ñu jógee mm-hmm. te ku nekk comme ni ma ko waxee léegi ku nekk am nga membre de ta famille bobo, xam Demna wala mi ngi waaj dem donc sentir responsabilité boobu que ne ñun war nañ def dara moo tax ma def film boobu ku nekk ak sa degré d'implication ak ku nekk ak sa moyen yi nga am da nga ko war a utiliser pour ñu xeex phénomène pour ñu xeex phénomène euh, phénomène bi mm-hmm. donc en en me sentant responsable de li nga xam ne moom mooy xew ci jamono ji te engagé suñu ay doom suñu ay jarbaat suñu ay rak donc moo tax ma

très très loin d'être facile. Mm-hmm. en revenant sur cette question par rapport à Mati Diop qui nga remporté le euh, remporter prix du mm-hmm. euh, festival de Cannes mm-hmm. donc du coup wa wa, nous koy féliciter euh, ci lu mais comme nous ma la ko waxee loolu rek façon de ngay peut-être moom nous avons niroo thème mais nous ñu traité beaucoup parce que mon film fiction la def fiction alors que moi j'ai fait un film documentaire il n'y y' a pas de fiction tout est basé sur des sur des faits réels sur des témoignages des gens qui ont été sur le terrain ça veut dire un jeune qui a été en Libye le Sénégal jaar Burkina jaar Mali euh, jaar Niger à Agadez à Agadez pour voir djogé fofu dem Libye Il a été fa jaar yum fa am métit yum ay nit yu nga xam ne ñoom la àndaloon ci voyage boobu ñuy dee si kanamam mu leen di gis mhm. mi ngi may nettali di ma nettali ne am na benn xaritam benn boo xam ne benn compagnon de voyage boo xam ne ci loxoom la deewee ça veut nii la ko tëralee waa ji di sukuraat ba dee ci ay loxoom quoi en quelque mhm. ak ay jigéen yoo xam ne parce que voyage bi bu ñu fàttalee que ne rek du ay góor a ñoo koy def mhm. ay jigéen ñi ngi risqué voyage bi am si ñoo xam ne sax ñi ngi ànd ak seen ay doom ci voyage bu metti boobu donc jigéen ñi dañ leen di jël di leen violer euh, ñenn ñi ñu leen di jàpp di leen torturer di leen laaj xaalis bu ñu demee ba jeexal amatuñu xaalis ñu leen di dóor di leen obligé ñu woté sen mbokk yi nek fi Sénégal wala fenen fu mënti nek ci Afrique pour ñu len di yónnee euh ça veut dire que ay otage lañ dañ len di jël en otage kidnapper len di demande ay ay rançon donc ñima jël c'est des gens yo xamné dañu dem sur le terrain vivre lolu après ñëw diko netali ak euh, euh, yeneen métit ay métit yu yoo xam ne dañ ko fee gis ay comme ni ma waxee ay nit ñu ñuy violé ñu leen di torturer am ñoo xam ne da leen di jàpp sax ci ay kaso di leen jël di leen jaay donc am na ci koo xam ne aussi tamit moom mi ngi demoon Libye en quatre-vingt-six temps yi nga xam ne dañu embargo woon Libye Libye pour bañ a étouffé wu ci embargo boobu mu tijji yoonu suuf yi pour que africains yi jeunes africains yi mën a jaar ci suuf ci désert bi ñëw Libye pour que ñu mën a am main d'œuvre yuy liggéey Libye pour mu développer donc temps yooyu noonu moom ci la demoon en 86 jaaree ci suuf si jàll jaar euh, Niger pour euh, ak Algérie pour dem Libye donc mi ngi nettali ne temps yooyu noonu vers les années 80 Libye dafa neexoon ba ñoom dañ ko doon defoon porte d'entrée pour dem Italie mais dañ doon ñëw seen affaire da doon dox foofu ba dootuñu sax sentirati le besoin d'aller en Italie finalement dañ doon mujj toog mais si xolé tamit bo tijé sa éducation tu vois nit africains yi commencé difa def ay yenn naka sudul libyens yi ba tax révolter contre ñom commencé di les torturer mi ngi may expliquer Libye vers les années 80, peut-être que c'était pas aussi médiatisé que maintenant parce que temps yooyu médias yi développé wu loon Sénégal Sénégal benn développement technologie bi tay mën nga dem li bi jël ben image mu def le tour du monde mhm. temps yooyu lolu amul won téléphone portable amul won donc du coup mu ne amoon na fa mais c'était pas médiatisé mu jox ma exemple bo xamné daf ma marqué mu ne des fois dañ leen dan regrouper ci ay camp les africains regrouper leen ba ñu bari nek ay centaines wala ay milliers ñu garder leen ci camp boobu libyen bo xamné da nga bëgg bon bu la liggéeyal sa cœur wala ku la defal benn travaux domestique nga ñëw foofu ñu luyee la kenn benn africain nga jël ko yóbbu ko sa kër liggéeyloo ko liggéeyloo ko tout la journée ba ngoon nga delloosi ko loolu amoon na libi loolu lan moo ko gën a nekk xeetu maltraitance lan moo ko gën a nekk esclavage mhm. bu ñu jógee ci loolu mu ñuy nettali aussi euh, bu ñu leen doon delloo si euh, si seen réew yi ça veut que dañ leen di dajale bu ñu leen dajalee foofu noonu bañu ñu toll bari ci ay camion lañ leen di yab camion yo xam dañ ci leen si yab ba mu bañu fess del ba nga xam ne kenn du meuna bouger mhm. ñu wara a jaar DGR ci ñu wara a dugg ci déger bi déger Niger bi euh, Niger bi pour mën leen euh, yobbu ku nekk sa rew mhm. donc mu ne euh, traverser boobu dafa doon metti mhm. parce que nee na traverser bi dina waroon durer une semaine une semaine yoo xam ne nee na mburu lañ daan am ak ndox mburu la lekk di ndox mburu sec di naan ndox ba keroog ñuy egg ci ci frontière Niger bi mm. nee na foofu noonu ñu bari dañ fa de ñu bari ñi paralysé ndax condition de voyage yu mm. ak tamit euh, soxna si nga wax loolu léegi nga xam ne dafa perdre sœuram ak kiyam frère ak euh, doomam ci biir kii bi mm-hmm. ci ci euh, ci ndox mi ci voyage bi ak paa bi nga xam ne ñoom ci sen loxo en 2006 ñom ñoo teug loolu wax il a utilisé le terme ñom ñoo teug les premières pirogues yi nga xam ñom ñoo tëmb ci ndox mi pour dem euh, île Canaries parce que mi ngi expliqué ne ñom dañu def des recherches ñu xamal leen na leen que ne île île euh, Canaries les îles Canaries nekul Espagne mais Maroc la nek ta Maroc la gëna a ils ont ils se sont dit que kon suñu fi teumbalé gal fi war nañ mëna def traversée bi en trois jours

kenn mënu ko chiffrer parce que ñoom bu ñuy dem duñu déclarer wu ci service compétent yi pour ñu mën leen identifier xam ne tant de personnes génn nañ. mais ñaata nit yow ñaata investigation yi nga def aussi ñaata nit ñoo fi jógee dem yegg ci jàmm sans problème. non loolaa lay loolaa lay expliquer affaire chiffres yi buñ ci naree buñ ci naree dugg day compliqué parce que man j'ai pas trop voulu travailler sur les chiffres. mais affaire chiffres yi dafa waroon am parce que xam nga internet yi foog foog affaire yi di leer seen bopp moo tax affaire chiffres yi moom buñu sañon da doon dafa daf ñu doon gëna a leer daal léegi euh, tey su la doon laaj euh, ñaata investigation yi nga jot a def ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ci à travers voyage bi bon à travers voyage bi on parle toujours des milliers et des milliers mais kenn mënu la wax ne le temps de personne exact ñom ñoo dé ci traverser bobu parce que buñuy dem duñu déclarer déclaré wu ci service compétent yi pour ñu xam que ne diw dem na. ça veut dire que soy dem par avion di nga jënd sa billet. Mm-hmm. am na heure de départ heure d'arrivée xam nañ né tel nit jënd na billet ci euh, telle euh, agence de voyage. Mm-hmm. Euh, tel nit jël na compagnie bi tel waaw tu vois tel nit jël na vol bi pour wacc tel heure ci ki bi donc kooku s'il disparaît en mer wala avion bi daanu. Mm-hmm dinañ avion bi 300 euh, personnes la transporter mhm. tant de personnes disparaître tant de personnes dé tant de personnes qui euh, nañ len repêcher mhm. mais voyage bo ne buñ koy def duñu mhm. dañuy dem ci souf ci mënul mënul chiffrer ñoo parce que amna ñoo euh, nañ dañuy mais ils ne sont jamais déclarés morts parce que Ken gisul euh, euh, corps ne mu ngi ça veut dire que ci témoignage artiste bi nga bi nga xamné mom interviewé mu def traversé bi muy euh, euh, rappeur Big Mahou mhm. bi nga xamné trajectoire am dafa spécial mhm. parcours am dafa spécial parce que avant may revenir ci li ngay wax nii euh, demul woon mom pour immigrer mom mhm demonoon pour immigrer c'était un c'était un c'est un rappeur bu doon produire ci benn scène fii à Dakar ben Nigérian ben producteur Nigérian nekkoon ci euh, public bi bi mu produire woo ba pare joué ba pare producteur Nigérian bi approché ni ko yow li ngay def daf ma neex sa musique daf ma neex te xam naa ne yow boo demoon Nigéria di nga mën réussir ci musique bi parce que foofu l'industrie musicale est très développée au Nigeria mm-hmm donc mu ne mu proposé ne ko nañ ànd dem nigeria mhm. bon ñu discuter si terme yu ñu war a liggéeyee foofu terme de contrat yëpp les gars bi ni ko comme que dafa war a jël euh, d'autres artistes avec eux au Burkina et et puis au Mali. Mhm. nañ ànd jaar si yoonu suuf si jël bus dem léegi waa ji ànd ak moom. léegi léegi bi ñu demee ba ci yoon bi waa ji commencé de revenir ci terme yi nga xam ne yëpp moom la ñu waxtaanoon avant ñuy départ léegi waa ji ne moom jaratul muy dem na retourné ñibbi si Sénégal donc foofu nag pour baña a dugg trop ci scénario bi di netali film bi fofu le parcoursum am changé destin am changé foofu ba mu mujj ji bi d'accord léegi euh, donc pour revenir si si si sa question ça veut dire que ci bir ki bobu par rapport ak nombre de euh, décès yi mhm. moom mi ngi wax né mi ngi expliqué na boo jógee Agadez ba kéro ngay egg libi mhm. mu ne ay tombe ay tombo ngay ay ay bàmmeel mhm. do def 3 mètres wala 4 mètres ci terme yooyu sax la la la la utiliser pour expliquer ko te gisoo bàmmeel mm-hmm. wala nga gis ay yax mm-hmm. ay squelette yuy éparpillé wu noonu ci désert bi mu leer ne lii ngay gis nii ay yaxu nit la mm-hmm. donc ñooñu kan moo leen mën a chiffrer seen seen seen chiffre seen seen seen nombre kenn mënu ko parce que ñoo xam ne dañu dee ba tasaaroo seen yax yi tasaaroo ci àll bi ñooñu kenn mënu ne tant de personnes moo dee wala tant de personnes lañ sauver. léegi euh, tey ban zone nga may wax su ma la ko doon laaj zone bi nga comme secteur bi clandestine bi jeunes jeunes en premier je vais dire Caaroy parce que l'expérience de Caaroy euh, la parce que faut la ci film bi fa la rencontrer, euh, Mustapha Diouf bi nga association de d'Espagne kooku noonu mom la lay wax legui il a tenté trois fois la euh, à trois reprises la traversée te mosu réussir à chaque fois dañ koy delloo si te ñom ñoo bokkon ci nga xamné ñoo samp ñoo tëgg euh, euh, kii yu euh pirok yi njëkk dem Espagne. ñom ñoo def scénario bi bassa wala bassa ñom ñoko ñom ñoko créer scénario bobu fekkone cinéma la ñom ñom ñoo créer ñom ñoo créer scénario bobu parce que ñom ñoo découvrir fofu la dem fofu on vous parle. Euh, le gars dafa wax ben terme buma ma me buma marqué parce que dafa en 2006 en 2006 mhm. nawétane amul euh, caaroy géej mhm. parce que jeunes yëpp dañu dé si géej mhm. parce que amul sax amuñu sax ay jeunes yu mën pour créer nawétane donc tu vois l'impact que ça que ça a créé à caaroy Euh, bu ñu doon am mënuñu am benn xayma nombre de chiffres yoo xamante ni jeune yi yu jóge caaro yi dem mënuñu ko am. ba léegi mënoo la mën ba léegi mënuñu la jox chiffre ne la telle personne ñoo dem et puis telle personne ñoo réer mhm. parce que Awa Gueye boobu ma lay wax ne la doomam ak frère am dañu réer ba léegi nii xamuñu ndax dee parce que ken bisul seen corps ils son disparus ils sont porté cest à mais kenn mënu leen xam ne la temps la. beneen euh, beneen euh, kii. localité euh, euh, euh, par exemple quand tu vas à Yarax man en off nit ku Yarax à ah, Yarax temps yoy nonou da nga teud ba centaines de personnes yuy dem si si di plage pour embarquer ci pirogue mm. le lendemain nga ne ñom ñep parce que parce que bu ñuy def hein, Euh, lu ci comme zone yi nga xam ne am na ndox ba am na géej muy ay yaraax ay caaroy ay kayaar ay bayax gis nañ ni foofu noonu ravagé na fa ay jeunes yu bëri immigration bi euh, ndox bi yóbbu na ay doomu aadama yu bëri donc waxoon naa ko sànq rek di ci delluwaat di leen ñaanal ñoom ñëpp ñi nga xamante ni amoon nañu yéene jóge fi dem bitim réew am yaakaar

mais y a personne la salle bi une centaine environ une centaine Nous sommes euh, euh, triés sur le volet ay nit yo xamné ay personnalité lañ ci cinéma ak ay personnalité yu yëngu ci immigration ak ay personnalité yu yëngu ci emploi ak développement parce que bo xolé immigration bi liko waral lepp moy liggéey mhm. liggéey rek mo mo waral li yow Do embarquer jamais ci gal man je embarquer jamais ci parce que aw nous ne ko justifier tay kuy liguey justifier ne dem nga ci nga fa justifier parce que ngi donc ñi rek tenter chance ailleurs parce que ils n'ont pas une autre alternative ils n'ont pas le choix donc du coup suñu nous a sen ak révolte la genre révolte la quoi bo xamné ben benn saut d'orgueil ngay am mané warna def li kon lu mu jar pour que ma mën ko def dina ko def donc sacrifice lay nek pour ñom pour ñu def ko. Hmm. bien que pour man jaru ko mais peut-être man degré bima ma toll pour juger né jaru ko ñoom peut-être egg nañ ci benen degré bo xamné entre guillemets ils vont se dire que jar na ko. Hmm. donc spectacle bu ñuy xaar moy kay ay nit lañuy ñuy invité ñoo xam ci ay acteurs de développement lañu dañu nekk si euh, secteur yi nga xam ne ñoom ñooy décider ay décideurs lañu mhm. ñu ñëw xool film bi d'abord mhm. suñu xoolee film bi ba pare maanaam projection bi bu jeexee ñu organiser benn panel. panel bi euh, euh, ki koy animé mooy madame ngone ndoy mhm. nekk ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur sous Wade et puis di gérer aussi di liggéey toujours ci immigration moom moy animé panel bobu and ko ak euh, monsieur Boubacar Sey bi nga xamné mom moom da fay nek ci ben ONG bu tudd Horizon Sans Frontières bi nga xamné mom tamit ci sensibilisation lay liggéey ci walu immigration ak euh, le rappeur Big Mako Jolof bi nga xamné mom moy acteur principal du film bi parce que vu son son parcours par rapport ak li koy yobbu ak li yobbu ñeneen ñi motax mom tamit dañ ko indi ci panel bi mu toog pour mën a euh, expliquer parcours am ak man mi nga xam ne man maay réalisateur film bi ñu discuter ci euh, euh, problématique immigration su panel bi jeexee dina am tamit beneen échange buy am entre journalistes yi nga xam ne yéen di ngeen fa ñëw pour couvrir si avant première bi ak ay yeneen spécialiste yoo xam ne bokkuñu ci panel bi ci panel ici mais ñi ngi ci jotaay bi am seen xel bu rafet bu ñuy dolli ñom tamit dinañ jël micro bi euh wax ci seen xalaat pour ñun ñëpp ñu euh, weccoonte ay xalaat pour échanger ay idées mhm. pour mën trouver solution ci phénomène bi nga xamné mi ngi sonal suñu suñu suñu suñu suñu askan wi. comme ni ko waxee immigration bi sonal na askan wi donc mi ngi nek ben fléau bo xamanteni day jël ampleur de plus en plus motax jour projection bi dina am conférence bo xamanteni ay kàngam yi seen xam-xam match ci walu bobu ñokoy animer pour mettre fin à ce fléau bi nga xamanteni jël na ampleur parce que gis nañ lib yi fa xew à travers les réseaux sociaux ñu koy sétane à travers aussi ci yenn chaîne de télé ñu koy sétane donc. Euh,

bo xamné nit ki da ciy liggéey pendant des années. Mhm. mën nañ ko assimiler à un musicien. Mhm. bu toog di répéter euh, cassette mhm. un album ba mu pare. su pareil, étape bu ci topp rek mooy génne ko ça veut dire que avant première vie, euh, la sortie de l'album. C'est la sortie du film. pour ñu wane ko si benn public bu bu réduit bo xamné ñom ñoy ñew xol ko après ñu xol la suite lan lay nek mais projet bi gëna immédiat comme ni ma ko waxee léegi kuy def dara mhm. mu nek œuvre da nga bëgg wané ko mhm. donc ñun suñu premier projet objectif moy wané film bi à la télévision mhm. Sénégal yépp gisandoo parce que télé dafa nek lo xamné euh, média de masse la donc boko diffuser fi fu nek ci Sénégal mën nañ ko giss mais fu nek ci aduna dinañ ko giss parce que tout simplement ba ñuy dugg ci projet bi lu tax ñu gën ko def moy sensibiliser te koy kuy sensibiliser nit. Mhm. war nga mëna fexé ba li nga def pour nga sensibiliser ko moom mu gis ko. Mhm. su ko gisul sa aspect sensibilisation bobu noonu donc do do ko ci amati. Mhm. donc projet bu njëkk bi mooy fexe ba sénégalais yépp gis film bi. gis ci seen bopp tamit c'est important. bop comme ça bu ko défé ñu gën a appuyer ci sensibilisation bi gën a wax ak jeunes yi. gën a wax ak tamit euh, askan wi ñi nga xamné ñoo yoni seen doom yi pour ñu sensibiliser ñu sensibiliser leen ci mm-hmm. danger yi nga xamné mom mo moo leen nar fekk ci ci yoon bi. Mm-hmm. ginaaw projet bobu mm-hmm. suñu benen projet bi nga xamné mom lañ am bo xamné bu immédiat la bo xamné ne and ak diffusion à la télé moy ñu organiser benn tournée nationale bo xamné wax nga ko légui amna ay euh, localité yo xamné ne fléau bi ñom la gëna a affecté bu ci mel ne caaroy géej mhm. boo xam ne Moustapha Diouf mhm. wax na ko ci biir film bi nee na ba léegi jeune caaroy géej yi seen xel mi ngi nekk ci dem bi mhm. bàyyeeguñ ko kon ñooñu war nañ mën a dem ba foofu ñaax leen toogam ñoom waxtaan nañu parce que télé bi kese doyul mais ñu dem ba foofu samb fa ngan di écran géant woo askan wi yëpp ñu ñëw famille yi doom yi euh, paa yeeg yi ñëpp ñu ñëw ñu toog ñu teg film bi projeté ko mm-hmm. ñu seetaan ko mm-hmm. après ñu sensibiliser leen gën leen wax gën a waxtaan ak ñoom ci danger yi nga xam ne yëpp moom moo am ci fléau bi mm-hmm. wax nga ko caaroy géej la euh, yaraax la Kayar euh, euh, ak ak zone yëpp yi nga xam ne ay zone ay zone yoo xam ne pêche bi dafa am doole te mu pêche bi nekk buntu ci ñoom parce que dañuy utiliser ay pirogue pêche boobu nekk buntu ci ñoom parce que am nañu instrument bi mooy pirogue bi

mu sensibiliser ko mu changer ko mu changer loko idée bu bonne bo xamné ne naroon ko def bo xamné mën nako ko indil njariñ mën nako indi indil mais quant à moyen yi nag pour promotion film bi carrément amuñu ko mm-hmm. ci ay partenaires lañu yaakar mm-hmm. ño xamné xam dinañ ñu accompagner en premier ci diffusion à la télé mm-hmm. mais accompagner ñu pour tournée nationale bi nga xamné dañ ko prévoir dem ci localité yépp ci Sénégal def fa projection waxtaan ak askan wi pour ñu parce que immigration moom kenn mënu ko fi jëlee. mënu ko fi jëlee di profiter wu di ah. lancer appel à ah, ñu jàppale jeune réalisateur bi mu nekk jeune un jeune qui en veut vraiment def dara pour réewam def dara pour Sénégal te film bi mën def tuuru àdduna bi parce que le contenu bi c'est tellement riche vraiment idée bi c'est original donc ñu ngi profité di lancer un appel donc l'info de la semaine dañ euh, la troisième édition du Baul Film Festival qui aura lieu à Djourbel du 29 novembre au 1er décembre est ouvert à tous les jeunes cinéastes ayant réalisé au moins un film. Vous pouvez envoyer vos films à partir du 1er juillet au 4 août 2019. Soumettez votre film de court-métrage, documentaire ou de fiction ayant une durée de 30 minutes au maximum à l'adresse email email bawol film festival arobase gmail point com bawol film arobase gmail point com yow mi nga xamante ni jeune réalisateur nga wala nga nekk réalisateur bëgg sa film wala sa lépp projet bi nga réalisé daw ci bawol festival film am nga du premier juillet ba 4 août pour déposé ko ma fàttaliwaat la adresse mail bi nga koy adressé bawol j'espère que Khadim yow di nga di nga bok ci ñi nga xamanteni dinañ présenter seen film ci festival bi. j'espère bien parce que ben ci objectif yi nga xam mom la la fàtte cité moy participer à tous les festivals mm. pour gëna vulgariser li nga xam mom lañuy la ñuy def. Fespaco dañuy dem dañuy dañuy dañuy dem Fespaco dañuy dem Burkina dañuy dem Burkina jëli fa récupérer prix bi dañuy dem CAN récupérer prix bi après. Euh, euh, merci beaucoup di si euh, yéene boobu nga am. Mhm. en tout cas dañ siy doog ñëw di si jéem. Mhm. mais bëgg nañu fépp foo xam ne maanaam dañ fay compétir. Mhm. ñu jël film bi wane ko foofu. incha allah pour xool lan la ñu mën jox. sa mot de la fin lan ngay tàggatoo. a de la fin bi c' est des remerciements yoo xam ne dama la koy jagleel pour intérêt bi nga xam ne da nga ko am ci ak. ni nga engagé woo ci projet bi mm-hmm. ak euh, tamit di remercier ñi jàpp ci projet bi yëpp mm-hmm. parce que bu doon man kese du ma du ma mën def lii ma def nii mm-hmm. dafa ñu bari ñoo xam ne ñu ngi sama ginnaaw di ma jàppale mënu ci bañ a citer Joséphine Mboup bi nga xam ne xam naa lii yëpp bu dul woon moom du am ak les autres ñi nga xam ne ñoom ñëpp jàpp nañ ci ci projet bi Anna Rocha bu nekk RFM El Hadj Ndiogou bu nekk RFM RFM Papis Diaw c'est un cousin moom tamit daf si jàpp ak euh, euh, Jara. Mhm. Euh, Cheikh Sadibou Jara ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mënu ma leen citer ñëpp ñu nekk si ginnaaw di. léegi Xaadim da ngay teg sa baaraam foofu le douze incha allah dañuy def yëfu mbëri andi <laughs> suñu liste sant ñi ci jàpp ñëpp ñëpp ñëpp di la remercier tamit pour sa disponibilité di remercier suñu tata Joséphine Boub moom mi coordonné émission bi. xa da ngay teg sa baaraam foofu. bala 12, le jour jour de projection bi ñu def yi fu mu un andi suñu liste ñu ñu sant ñëpp gërëm ñëpp mais nak mënuñu gërëm une personne spéciale parce que tay émission bi bu amé ginaaw yàlla mom la muy suñu yaay di suñu tata di suñu xarit di suñu lepp muy maman Joséphine Boub man sama yaay maman parce que dañ mako denk euh tonton bu idole moma ne ma dégg naa la ko te tonton papa ci man donc maman Joséphine merci du fond du cœur parce que japp na ci coordination émission bi bu baax a baax a baax léegi Xaadim da ngay sa ba le douze le jour ji ñu defee fu mu ñun tamé ñu andi suñu liste gërëm ñu ñuy gërëm sant ñu ñuy sant ñëpp ci ñëpp parce que mu am euh, gërëm une personne spéciale euh, mention spéciale à maman Boub man dama vous wax maman parce que dañ donc émission bi bu nous la na ci bu a baax Khadim merci pour yow disponibilité. merci beaucoup merci beaucoup Lamine et puis bonne continuation parce que nous émission action parce que fi Sénégal bariwul ay émissions yu wax ci cinéma mhm. donc nga nek jeune yo tamit am euh, idée bobu donc je vous def loolu encourager la et puis ñaanal la émission bi dem ba nek ci télé yu mag a yi. espérons yalla yalla yàlla nangu ñaan di jox ci rendez-vous dans un autre numéro de Action dans IGFM d'ici là restez connectés sur nos programmes.